waxtaan nañ wax na ma li ne si xolam nee na ma temps day njaay def naa erreur te reconnaître naa ko ndax kilifa moom doj la rek ñun ñii ñuy nen buñ dalee seen kaw toj buñ dalee suñu kaw toj dem na nag ba xam ne juum na nee na daa ñëw pour tuubal si la nga jéggal ko ndax ah, bayre bàyyi lañu wax barke bàyyi te sa xol bi warul tàng ci moom bu tàngee ci moom du ko arrangé du baax ci ay mbiram kon nag lépp loo jàppoon bëgg naa nga raxas ko ba mu set baal sa doom ji ndax mën naa ni ginnaaw petit mi sama doom ji mooy sa caat bu jigéen gisaatoo fi beneen doom bu jigéen kon nag ku ko war a tëniir nga ku ko war a jàppale la dëgg la ne def na def na musiba moom ndax li mu wax moom man li e, dégluwuma ko waaye xam naa ne naqari na sa xol bii mais baal ko nit dangay jéggale di jéllale loolu laa la doon wax si bul tontu bul xuloo bul coow surtout maak sa doom baal ko àq du dëkk baal ko àdduna amul solo moom laa merew mm. waaye yow mii laa mere ndax danga maa tooñ allu ma def non si danga ma xanaa da nga ne temps yi jàmm am na nga ne danga may tooñ c'est vrai romb na ma ci mbedd bi di ma wax yooyu papa baal ma faalewu ma ko yaa ngi kii li ma def ku ma yeewoon trois heures du matin ak cinq cent milliards du ma ne awa dina def lii jàkkaarloog sa baay di ko wax ji wax ci bon bii audio bu bon ah saaga ma saaga ku ne ba ci sa eh, sama yaay sa goro bu jigéen ba ci àllaaxira boole na ko ci. na sama papa boole na ko ci. Mm-hmm. seen mii nga xam ni. Mm-hmm. kii ku xef mu dugal la safara ndax muñ na fi lu ne. ñëpp moo la uuf mu koy boole ci audio bu bon boobu. yaa ngi dégg yow mi saaga na la. man baal naa ko ama problème man. tax yaa moom sa baal bu la neexee nga baal ko. waaye kii moom maag moom. Mm. na génn rek na génn. déedéet ba mu kii bu génnee fu mu jëm. fu mu jëm te bu boobaa way bi bi du fay. ndax ah, ba am nga fi way bu rafet si koñ bii résidence bi ci réew mii am nga fi way bu rafet kon bu xa bul nangu benn xale di la di la tuural sa way ak di ko yàq. bu bu demee nit ñee ñëwati kilifa yi ku ne ñëw fi di ba di la ñaan te bu boobaa looy wax. nañ waxante dëgg bu fi indi problème balaa kilifa yee ñëw ñun ñu ñooy njëkk a ñaan te man yàlla am na lu ma lu ma may kilifa laata am naa droit ci yow ñaan naa la baal ko àq jéggale ko jeexut dañu woon day jënd guro man ko awa bu ci dugg sa papa diggante bi ñu fiy jënd guróog yooyu mën naa génn. maanaam guróog tàndarma laa ci yemale lu ko neex moom daal na dem. lu ko lu mu paan bu ko indi woon bi paanu guróog paanu tàndarma baax na rek. ba na dem yoonam voilà ba dara indiwul paanu tàndar ma xaalis la indi ñaar fukki junni na la lay tuubal ma ni ko jox ko ko nga mu féexal xolam nee na nag dafa ñëw pour nga jënd ci galaas ndax guro da nga koy yëy muy metti galaas nag da nga koy naan sa xol di féex léegi nag loolu la wax ñaar fukki junni rek la indi ma sa papa papa maa bëgg nga baal xam nga kii tax na ku ne yeb ma yaayam nee ma dama koo yàq bi ma nee na ma fii dalaa tàggu gina gu jigéen xadi bu la tàggoon ba tàggu na la pour dem sali nga ko mu dem. Mhm. lu lu awa lu mu bëgg yaa nga ca. Mhm. parce que maa ko bëggal sama bopp. ndeysaan oh. ci ki ma ko tuddee tax. ndax mhm. xam naa xol bi mu am ci man. yaa liggéey na fi fayee ko ba muy ne ca restaurant ba ñëw tàll ko ni ma mi ngi ba yaay mere ko ci weer xam nga loo ko bëgg sa bàyyi am kilifa moo koy def bu ko neexoon jubal marché jënd seen yi ñuy sol mhm. kenn mu mënu ci dara moo ko mhm. liggéey mhm. ah xam nga li ma la wax dëgg la waaw mais mbaam xam doom ji waaye bañu kenn du juddi bañ kenn du juddi bañ du ah, waaye kii kii kii daal sama yaakaar déedéet aw ah, bul jooy yow déggal man xam ah, bul jooy lii baaxul ci moom tamit baaxul ci moom bàyyil mu sedd rek ah waaw jox moom lii ma jox ko sama yaakaar ah, na jox ma ma jox sa papa waaw juum eh, juum na def na erreur te xale la rek du dëgg papa danga maa baalu loo ma koo ko jox waa de li ko ko jox yow la ma eh, jox yow la ojo woon yow la saagoo waaye yow moom ba baala xale bi mu dem eh, xaalis bi yow boo ko bàyyee fii laa lay wax ni xool bu gën a tàng ma amoon ci yow laa xam naa li la wax ndax xam naa kii. récupérer lii. lijjanti leen ko ci waaw kañ demal. aw kaay récupérer ko. baal na la demal. Eh, indi da nga irresponsable. indi eh bankal ba sa loxo yi bari baaraam yi déglu ma. yow ba yow lan moo tax doo wane kilifteef mu ko yow xaalis bi ba mu nee bërëj siif nga wàcc. wàcc la. da ngaa wàcc. lu ma wàcc du yaa ma ñaan. Eh, ko yaa ma ñaan ma wàcc. xaalis bi ngay jàmm mënoo koo bàyyi ba ngir yàlla. xaalis laa jaam. dangaa bëgg dërëm sa diggante dërëm ban problème lem nañ. Eh, gis nga ki xam naa gis nga xaalis buñ la jégaloo moo premier cadeau buñ jox jigéen ñi. waaw ma ki ko jox moo ko moom. moo tax rek. lu leer ma ak yow benn lañ. du may sa du may sa non lii duñ ci benn de kenn saagawul la kenn audio la jox ma rek déglu ma rek audio wuñ la du may sa damit dëggam déet. dabiti la. du ma sa genn waal. waaye dem man damaa damul fàq ma indi. <laughs> léegi nag non non lii ci kàttanu yàlla ak mbaaxam maa ciy faj samay soxla ndax booba tey maa ngi am sama soxla sama doom jee amul meem amul couche amul dara. maa doon bëri kole. Ndeye Ndiaye boog seen ñu dégg de. dégg kenn kenn audio la indi sama xaalis. waaw yow li jor jot. indi kenn audio la de. waaw soo ma xeex bu defee bu nu ñu ñëwee man leen xaalis lay lay xeex. yow foo jëm. doxi samay soxla dem maa sebet doon def añ. la ko man. yow ba bu loolu fa ba bu kii day yóbbu ni xaaj biti waaw waxal ma ko kay waaw maa lay woowaat léegi naar waaw ok astu <laughs> naar de xanaa naar ngay waxal waaw moom laay <laughs> nag maa ngi fi ana waa kër gi alhamdulilah mhm. ah yaa ba léegi ma nga doon génn nii sax ah déet ma ne waxi keroog ba ay mer ndax man wax ji incha allah rabbi sa doom li ko dal naq dina ma. awa sama doom la kon am na loo xam bu ko dalee te may ñëw ci kër gi xam nga ni loolu loolu loolu du ma ko rafetlu tataar nag xam nga moom moo dëgër bopp waaye bu dëgërul woon bopp la ma ko waxoon mooy mun mu muñ rek muñ rek muñ rek ba yàlla def li gën waaye xale yi kenn mënu leen coloniser xale yi kenn mënu leen dara li ma bëgg nag nga xam ni yow man nag ñoo yàgg na noo far. lii nag damaa bëgg nga bañ cee nekk di mer ak di stress ak mu lay indi feebar te xam ne maa ngi sa kanam maa ngi sa ginnaaw lépp loo xamante ni war na ci yëf yi wax ma ko incha allah li ma ca war a def ma def ko ci waaw ndax nag ah, xale yi suñu njaboot la yow suñu xool noppi. léegi laay noppi ni su ma waxee pare. kon da ngaa war a arrêté. waaw bu noppee da ngaa a arrêté. lan moo le. asmak ah wax jooju ko tamit da wëri doom yow da ngaa jur tetaar ba naan ma tetaar tetaar tetaar fii la taxaw wax na lépp nee a juróo ko doo baayam dalaa mbubboo woon comme bàyyi baay nga defe ne xamuñu dëgg ñun dañoo xam lépp bàyyi la ci biir bañ laa wax dara hmm. xam nga nag lu ma bëgg uh-huh. dooma tooñ ba pare di ma tooñ ñarbe waat uh-huh. sama doom ji ngeen jël jaxase sama xel mi ba ëmbal ko ba maa ngi toog jaaxle fu ne ma fay duma ko dikk jaaxle bay bëgg a dee wacc leen ma tranquille ma toog sama toogaay bu leen ma yëngal nag du loolu laa la wax bu ci jaaxleeti lépp loo xam war na ci loolu dinaa ko def. léegi yow lu ci war noo koy defee xaw ma baayu tataar xaw ma ndeyu tataar xaw ma fu tataar tataar voilà fan laay lijjantee tataar la question léegi nag li ma la bëgg a leeralal yow sama digganteeg yow ak kóllëre gi yàlla soo déggee ma ni tataar sama doom la mooy tataar dafa dëkkoon nii man ma dëkk ne ñoom ma dëkk sama kër ñoom ñu lee fii ndayam ak baayam xëy rek def accident accident ci tali bi ñoom ñaar ñëpp faatoo ndoo bi mu faatoo bi ilimaan bi ñëwee ñu sang ba pare ñu ne ma comme tataar tàmm na sa kër jël ko nu may la ko bin ma ko may itam ma def yi fi jullit xamul kenn man la xam di ma wooyee baay di ma wooyee baay di ma wooyee baay ba fi ñu toll nii loo kooku sama doom la kon nag bu lu mer nii amee may wax ak yow dangay a fa sa kanam rek. ñu taane ko. kon yow doo bàyyi nii. ah baayam laa koy ndax ndeyam ak baayam. man yow doo bàyyi daal yow daal doo ma bàyyi oh, nag. yow daal lan laay bàyyi da rek. waaw léegi lan la mooy problème man dama ñëw rek pour ñu ñu waxtaan ci fu la. waaw na léegi comme tata ndeyam ak baayam moom amul nijaay amul tante. déedéet tata amul mbokk. moom daal moom dong la kon. déedéet am fii Dakar lakk bu metti ba amoon ca ca ca port ma. fa la ay mbokkam yëpp mu des yaayam ak baayam. loolu nag moo jàpp yaayam ak baayam daf lay cancer cancer de cœur cancer de peau cancer de tête ñu faatu loolu xam nga say mbokk yi. kon mënuñu bo bo waaw parce accident la cancer <laughs> asu nag yow jàngoo nag loolu la jàngoo loolu la waaw ah. ah, jàngoo nag eh, eh. léegi li ma bëgg mooy yow jàppal sa sa sa sa sa njàmbur te lépp lu war ci yëf yi nga wax ma ko ma def ndax tetaar moom liggéeyam demewul noonu waaw moom la xam nga liggéeyam demewul noonu moom tetaar mi ngi liggéey fii soo demee ba rompee jaxaaw ca marché ba marché ba rond point foofu ña fa xam bari nañu rond point bi nii ñoom Ousmane Cuuraay fi ñuy jaayee ak ñoom Njaw waaw léegi nag boo demee marché boo nee tetaar duñ ko xam cas lan xam cas kon tata bi surnom la. su la surnom la waaw. comme surnom ay bii famille ay waay. <laughs> rond point jaxaaw daal. boo demee ba rond point jaxaaw. su ma nee ana cas ñun la bu fa loo fay waxtu wi tàng na. ah looy wax ak moom. du ma ko xool ah ke jamono ji damaa war di moom bis boo demee fekk ko ci place liggéey kaam dafa wax yi tamit day indi beneen wax ooy falal sa àdduna te bàyyi lépp dinaa ko réglé. ana ana ñoom nday ña ngi ci biir waaw <laughs> kay baax na defal ni ma la ko waxee rek dégg nga waaw kay mu adduna amul solo adduna amul solo <laughs> ana ana ana ana kii ba ah, yow muyal rek muyal rek xam naa ni wala man ne ku amee fit ne cuqale mi jaaxal na mais cuqale mi amul fit kii ku ko ngemb leera ma ne Ousmane Kobar la waaye jàmm looy naan nii. citron nag dem ba léegi daal sama yaram neexul. nga xool sa bët yi xam ne wéeroo. waaw man de wéer rek moom sama wéeru mu may nelaw ma bi. lu tax. bàjjen gis na ma ba fa kanamu sa jabar ju ndaw ji ci biir kër su la neexee nga wax loolu. <laughs> daf ma fat sax laay wax. daf may fekk ci biir nit la may fekk ci biir nit dama toroxal caam jógal. waxoon naa la ngay wax. waaw caam la may fekk ma toog ci biir ay nit ñëpp toog mu ma eh waxoon naal fi la fi toog fekk ma këdd. ma koy sagal rek. bañ koo torox ci biir nit bañ lu ko naqari parce que ci situation yi ma ko fekkoon mu ne ay situation yu metti ma yërëm ko jël ko takk ko indi ko si biir kër gi foog ni dina changé mu ne ci biir kër gi yow doon fi liggéey yow gis nga lépp xam nga lépp ma sepp ku ñëw takk ko ay mille moroomam mille moroomam doon ñu ma topp man caam ma bañ bajan waxal ak kii bala may jël ay samay décision waxal moom de. caam yow laa am yow tu es nul caam caam. ndax yow caam lu tax nga ñuul mooy da ngeen fekk ay xale yu ndaw ngeen takk leen xale yi di leen capp cappee di leen riita mbale leen def lu ne ngeen naan sama jabar dama koy suturaal sama jabar dama koy def nii du noonu mag day dem ca mag ña xale dem ca xale ya gis sa jabar gis ba ko gisee kanam gu gàtt gee muy tunguñ tunguñ ay tànkam yu gàtt man ci laa xam ne xale bii man ko ragal man dama ko ragal man man moom daf ma neexul ragal naa ko ñemewu ma ko man duma ko sax xool ndax xonqaay dama ko ragal léegi nag leen am na ku jaaxle ci bàjjen ngay ñëwaat bàjjen sama jabar ji nii bàjjen sama jëkkër ji nii bàjjen sama lii nii bàjjen moo bon waaye tey bàjjen moo baax bu bàjjen bonee problème amee bàjjen day baax ngeen takkal ma étiquette bu baax bi mooy baraza bi def nii yëkkati sama loxo naan oo oh, oo oh, oh, eh, bàjjen moo jël ndam li yàlla def na na juboo xoloo nga ak sa jabar li ma ci man duma ko ci def ndax xale bi danga ko war a fase sax divorcé ko bind sa lettre de divorce bind lettre de divorce bu saf sap yónnee ko ay mbokkam ñu jël si xale bi kër gi yëpp nee nañ dama ko ragal dama ko ragal kay ñëpp loolu la ñu wax ñëpp ko wax ñëpp ko wax léegi effectivement man damay jël sama décision fase kii dama koy bàyyi dama koy fas. dama jël sama décision lii caam lii amul amul décision bindal sa bindal sa bic ak sa feuille bind sa lettre de divorce signé ko signature yónnee ko ay bokkam ñu ñëw jël si ko. ah bon waaw jeex na loolu dong la. yow foog nga ni fi mu toll nii loolu mooy solution bi. eh da nga koy fase xale bi da nga ko fase ndax baaxut boo gisee mu tunguñ tunguñ gi di def nii te boo gisee ko gàtt moo gën a am bari solo xale bi ga sopp na torop torop man daa ñemee ma ko man man daa ñemee ma ko xam naa ne ko ñàkk kilifa la. ñàkk na kilifa ay eh, amul yooyu yëpp. yooyu yëpp dugg ci eh, aussi eh, ay affaire yu ngàttaan nag karante ah, yow aussi ah. da ngaa gàtt. non non non non dañuy waxante dëgg aussi da ngaa gàtt. yaa may dépassé non non dépassé wu ma la. yow problème baa ngi ni këtt ni joon ñu ñu bëgg koo réglé ba bëgg bëgg kii bi nga nga may nga may xas. ay xasaate yi aussi mën nañu ñàkk damay waxtaan ak yow rek léegi jël naa décision fase ko jël naa décision bi nag te du ma ci dellu gannaaw waaw du ma ci non du ma ci dellu gannaaw. boo ci dellu gannaaw sa affaire la. ñun ay garmi lañu ay bette bette lañu xale bii ci boppam dinañu abal kër gi ba leen gune yu ndaw yii dañ leen di trompe xale baa ngi tudd trompe xale baa ngi nii da ngeen gis xale yu ndaw yi ñuy cukkur cukkur mënu sëyu ñu tey sëyu ñu suba maa ko wax. foog nga loolu solution sëyu ñu ginnaaw suba solution bu mag mag day takk mag xale takk xale ñu àndoon def leneen saf waaye yow nga am téeméer tak fukk takk xale ba am 18 ans. baax na kon dinaa ci réfléchir kii daal jël naa décision dama ko parce que j'en peux plus ah. j'en peux plus kay. plus. xëccee ba fii day du wax ak yow dafa di mbir am na daal ci kër gi ak jàmm waaw tolof tolof dugg si na ci kër gi encore waaw ndax euh, buur hmm. bi ñuy dem mission hmm. démb avant muy dem woon na ma man ak moom ak yàlla ñuy waxtaan hmm. te li ma wax daal xeeñul neex daal parce que daf ma xamal ni ma seen société dañuy traverser des difficultés financières fi mu ne lu mu mënoon à cent cent léegi mën naa ne mënu ko sax a cinquante pour cent ak inflation yi am ci prix yi société yi ku nekk di daanu duñ jógee ci Covid beeg yooyu yëpp répercussions yi ci am day doog a agsi ci ñoom léegi nag bët du yenn waaye xam na lu bopp antam bu sonalu kenn deflewul kenn lenn lu mu mën ak lu mu mënul sax dana ko jéem ni la mën naa ko waaye nag ma bëggoon rekk euh, ba ñu jéem ko jàppale ndax buñ ko jàppale suñu bopp lañ jàppale li daan xew ci kër gi mu yàq gi ñu wàññi ko dépense nag ba ñëwee ba léegi gis naa ni dangaa croiser les bras joxe wu ko benn yoon au moins ngay jéem a participer muy alléger ay dépense kër gi loo wax nag ñu ne la dañuy doomam moo ne nangam waaye nang waaye dangay seet dangay dugg ci néeg néeg bu ne am na télé néeg bu ne ventilo ngay tàkk da ngay dugg ci nekk fekk télé di tàkk ventilo di tàkk lampe tàkk kenn du fa ne ñu bàyyi néeg ba bu nem noonu ndox mi day walangaan à longueur de journée factures yu exorbitantes yoo xam ne lañ fi indi ci kër gi kenn mënu la koo wax buñ ko coupé tey ji ñun suñu bopp lañ ko def lekk gi da ngay toog ba yaa nga dem tuuri ca njambaam lu ne lañ fi def nañu wàññi nañu yaraat suñu bopp nañu jàppale buur ndax bu suuxee kat ñun ñëppay àndandoo suuf ma xëcc la bi fii nag ñaa ci wax ak yow daal luñ ko mën a dimbalee ñu dimbale ko lépp ci sutura <laughs> c'est triste quoi <laughs> yéen yéen ngi ci seen jeu yi ba léegi jógeegu leen ci non c'est vrai yéen daal bu ngeen toogee ba kër gi stable nit dara amul jàmm am na rek ngeen nañu créer benn problème pour man ah yow bu loolu bu amee yow lay yóbbante man mi bàyyi waxuma ko société ba dara ne ko c'est pas vrai amul loolu amul démb rek dañu nag benn ku mu bokkal benn collègue am supermarché affaire la génne ah mi ngi ñaari chariot le pousse société bu am problème feeku ñi dina jënd loolu lépp ah ba di ma laaj bu ah yéen kay bu ngeen toogee ba bëgg ma génn kër gi sama njaboot da ngeen koy wax waaye nekkuma fi di cotiser ay dépenses wala dara voilà. voilà li ma doon wax lee tax bëggul a jàkkaar yow di la ko wax j'ai tout compris gis nga ba yow dangaa mës a irresponsable dans la vie yow si dans tes gènes li ma lay wax chaque jour ba lii laa fi defoon ba fi bu mu commencé am problème ñu juum nga taxaw démarqué wu ànd ak say jabar naan ma sàcc la am say douze million di ko foye muñ la ne bu la bu ne jàppale ma nga ne damay defante ber sa njël lu ne nga def ko ci kër gi ba tey anamu furaas dal la xëddeen xaat yaa nga mel ni lu bu perte xëy na loolu nga ko yéene tey ji ndax picc mu lakk ci bopp day bëgg morom waaye li ma la wax boo ko gëmee baax na boo ko gëmul baax na léegi daal jël leen seeni responsabilité parce que rien ne sera plus comme avant la mu moom noonu mënatu ko te du ma sànq sama doom ndax bu mettee da ngeen ma koy jalax mm-hmm. waaw di ngeen joxe dépense di ngeen jàpp ci facture yi. yow yaa jël décision waaw dina leer. waaw baax na waaw xool. daal yow daal nii rek. waaw d' dañ lay gàddu rek. waaw dañ waaw d' accord. yow ba keroog nga dugg suuf dañ lay gàdduñ fi kenn fii li ma leen wax rek yàlla yor ñëpp gàdduñ ñëpp. yàlla man xam naa lépp jeu yëpp yow la de man xam naa la bi may romb ci couloir bi di ma xeelu yor bëti kàkkatar fu ne sa ma nga naa ma xeelu la léegi boo may jox añ da ko naan dëj ne ma wann gaa ngi wann gaa ngi mel ni koy wax ak ragalal man saa taxaw naan la wann gaa ngi sos nga war a bàyyi man wann gaa ngi doon ne mu ko kër toog sa borom kër naan ma nga naan dangaa gaddu sa njaboot non waxuma loolu mën nga naan danga non amatul loo may wax comme dem nga ba naan ma dangaa sos ah, waaw parce que mosuma la tegal lekk naan la war man déglootuma la de respect à ce point dem mën nga naan sos waaw man ngay manque de respect mel da koy xoole sa paa booba daan toog ca kër ga rek kooko gàcce ngaalaama kooko danaan wax sama yaay bu ma jëndal dërëmu xorom ci kër gi duma la ko baal ah, kooko dafa gàddu njaboot muñal sa bopp ndax ëllëg a tax sëy yëpp yam sëy yëpp a metti te góor ñëpp nag ah, ah, yamuñu mais am na si ñenn ñoo xam ne luñ la defal dañ koy wax luñ la mënti defal dañ la koy wax wala ñu joteeg yow cent la facture courant ñëw ñun dañ ko xaajoo location jot ñu dem leen mu def nii ngay dëbb daake di dem ak a dikk xaalis sa sutura xolama problème yooyu fi ne moo tax jéem leen a engagé wu defaraat seen toogaay liggéey bu leen xeeb benn liggéey ngeen defaraat mënal seen bopp ba boo leen soxlaa da ngeen naan yóot ubbi seen poche fajal seen bopp hmm? jaay ndox mi am na fi sachet ndox yaa ngi nii macha allah boo ko congelé jënd sa ñaari mbuusu glace toj def sa glacière teg fee di jaay si tàngaay lañ loolu bénéfice boo ci am doo ci doo ci teg toog investir mënul jur leneen góorgóorlu leen waaw nee ne tuuti mii laay waxal yow jàng nga Dakar Bourguiba bii nga nekkul def nga fa ay yées say gis nga mi ngi nii mais utiliser si sa diplôme yooyu foo demande dugal demande yàlla dina la dimbali nga liggéey ba a toog fii rek doon femme au foyer. Hmm? dégg ngeen ma bu baax. dégg nañu góorgóorlu leen waaw góorgóorlu leen góorgóorlu leen mi ngi noon ah, boo xoolee nee na tuuti ba ba problème am fi eh, bel mii di joxe dépense kër gi loolu tamit problème la hmm? bëggaluma la woon loolu dëgg neexul hmm? góorgóorlu leen. man day ñaay ma gisee nii ma toog rek tee sama bopp. pour yow ma new ma ci dara ah samay mbir maa ko doon wax ci biir kër gi ndax su ma ko waxee ci biir kër gi su ma xëyee suba fekkoon buntu monument de la renaissance wax ca tegu fa ñu taf ko fa mm. moo tax damay def li may def ne pat. pat ko organisé waaw ah, noonu la nit moom da ngay ma toog di xoole ba benn jigéen di ma yor. non da ngay nit am sutura. Ah, mm-hmm. man de ñaanuma yàlla sax di joxe dépense ci biir kër gi. Mm-hmm. ndax sunu jëkkër amagul problème. Mm-hmm. xëy na dañ ni seen entreprise moo am problème mais ñaana ñaanuñu yàlla bu di fayit mhm. ba du am lu mu joxe dépense xam nga ndax bu moom bu metti leen ñun ñëpp metti leen dëgg la nan ko ñaanal yàlla rek loolu ñuy wax mhm. mu bañ ko dal yàlla suturaal ko loolu mooy dëgg man ko loolooy ñaan gi sax ñu nekk fi sëy sëy bu neex sëy bu rafet bu barkeel du dëgg jàppale suñu jëkkër soutenir ko ndax benn lam sax du yëngu nag heureusement ba ngeen doolee ñett lam tey neex a kacc kaccal góorgóorlu leen man ko yàlla suturaale man daal loolu laa la doon résumé rek waaw soog leen ngeen waxtaan nag. salaamaaleykum. <laughs> na ngeen def kii ah, ba. sama rakk yi ñëwoon fii dof dof waaw gendarmerie laa dem ñu convoqué ma. bi ma ñëwee toog ah, ah, commandant guerre ni ma yow loon convoqué ma ne ko mu ni ma waa mu ni ji lève toi mu ni ko fut fut. fut yow tam man man damaa demande dof dof la. fii laa toog ma ne sama caatu baay la dafa amee rab. man bi ma demee damaa jël tous mes précautions yóbbaale ay kayitu dofam ni ko fàtt ci ci table commandant bi ni ko dama fekk ci digg nit ñi di ma toroxal prévenir leen ko nag mhm. ñu dàq ko ca biti na ngeen yéen nga am jàmm <laughs> may ay rétro nga ki ne bëgg nga rétro maanaam <laughs> man damaa bëgg ay woy yu yàgg yow gaa <laughs> ah, démb daf la neex rawatina nag rab gaal seen ak mhm. fuu malade fuu malade maa ko bëgg ah, ah, da ngeen di déglu yooy c'est que maanaam ci ay biir waxam moom day jàngale day wax day àdd bu baax lay def surtout woyam boobu mu naan cukku naam cukkul i cukku na kay cukku naam cukkul Coxna kay. yee yee yee. coxale kay. yee yee yee. coxale yee yee yee. coxale kay. suba sangu sol yére suulu sa kër tilim ndox mi taaju ngay wër di fet. coxale kay. ngay wër di sos. coxale kay. ngay di malfaiteur. coxale kay. cuxule cuxule cuxule. xam nga li gën a bon fekk ñetti jigéen ñoo xam ni dañu am jëkkër am far yéen ñett ñi te ku ma ci moytuwul nag dina tot xol saaga ba toj sa baar mu na tos tos